إله إلا الله تيا لا لا إله إلا الله تيا لا لا إله إلا الله تيا لا لا إله إلا الله تيا لا لا إله إلا الله تيا لا لا إله إلا الله تيا لا لا إله إلا الله تيا لا لا إله ngërëma ngërëma ak ilaar faal yu gëndo doole faal ma mba ngërëma ngërëma ak ilaar faal yu gëndo li du naan faal li du naan la yàlla la yàlla la bu doon neen faal bu sara seex faal seex baay góor seex baay góor si mu deme yàlla na suñu borom mboole dimbali loolu moom ndigal la te ndigal caabi bu ëppee du tijji bu yéesee du tujji sunu xel nag dal na bu baax ngiran baay mbay sunu xel dal na bu baax ndax bi ma jëlee décision bi ak dogu gi nga ne ma ak man ci laa amee rafet njort ak yaqin gu wér ni suñu borom dana ma ci jàppale te sëñ Fallou Diop yéex gee xam rek moo ma naqari waxuma ay jox jox de waaye valeur bi ko yàlla defal ci considération ci nit man loolu rek laay jàppe nit barka alxuraan ñi ma xam ñépp xale laa ci ay at ndax juróom fukki ak juróom benn rek laa am cinquante waaye de wala rek laay jàpp nit barka alxuraan waaye sëñ Fallou Diop valeur bi ko yàlla defal gis naa nit ba tàyyi waaye ku mel ne moom mosuma ko gis barke alxuraan billaahi wal kitaab mën naa wax ak yow nii léegi ngeen xuloo léegi mu wax la dëgg gi mu la war a wax lépp ngeen juboowaat léegi toog di waxtaan léegi nii yeex gee xam rek moo mën a xare barke seexul xaddim ndax nit mën na lay jox te du la considéré te as dëgg soo ko dee jox àdduna ak li ci biiram di ko ko joxee ni fas yéene joxin bu dee góor dëgg dootu ko jël si wala boo ko joxee dootu ko fab <laughs> waaye damay nekk nekk xale yépp mu man ma jur junniy joon su ñëwee su ma ñëwee lay waxtaan ak mel mel ni ku nekk ak moroom considération bu rëy kar ba ma demee Gabon néew ma ko sax ñëw naa fi dafa dégg na ñëw naa fi rek mu yebal Modou Niass Guèye boole ko paseroom bu weex ba mu ñëw jël si ma yóbbu ma classe maa ngi ko fekk muy déglu xare bi ñu xare woon ci euh, mbul magi géwél yi di ko nettali ci ci rajo bi mu ne ma déggal ñii li ñuy waxtaane ci jom ak ngor ak wor <laughs> barka alxuraan ne ma nit bu amul jom amul ngor tay war bayiko ko was as gor billaahi wal kitaab yendoog man ba ngon jot mu tal ma teraanga joo xam te ni jomb ko sax diko wax seigne fallu man mënuma wax rusna sax di wax fi ma jaar ak moom ko 28 la ma fekk bëccëgu ndara kam bëccëg bëccëg 28 bobo Alaaji Mbàkke cham mi dekk Kawlax yalla nako yalla yeeram yërëm te ko aljama moo ma luyee vingt ma luyee ma ma dëkk sa kër ga luyee fa muy buy taw damay taata ndax maa ñetti kañaa dëkk barke alxuraan billaahi Ibrahima Mbengue mi toog xam na sax ndax fekk naa fa ba maa nga dëkkoon ak agresseur ya xam naa seen tur dama leen di bañ tudd <laughs> ci ci ci taax bi ku dugg la ngay tëj ma tëj mu fëgg man koo kanam man ma Fallou Diop man ko koy set mun ak sa sam ma dal koy ubil bobu awuma bang awuma dara <laughs> ndax ab pajaas rek la fa tek tek ci mer gaddu yi ci kawam mu dugg ne fi nga lek man ko awo mun man job la sant fal la tud dama setan sa kasset ca daire ma fatul bisri ca ñom day fili job ak soxna awa soxna wo bi tey mii toog mu baax mi nga xamanteni su ma ko séenee rek sama xel dem ci bis boobu <laughs> barke alxuraan sëñ Omar Gueye mii moo yóbbu band ba Gabon sëñ Fallou Diop seetaan ko waaye bu mu ñëwee yónniwul kenn yebalul kenn moo doxal boppam ba gaari sama buntu këram dikk fekk ma ci néeg bi toog ñu waxtaan mu ne fii nga dëkk ma ne ko waaw mu ne fii nga dëkk dëkk tigi tigi tigi tigi ma ne ko fii laa dëkk mu ne ma damay jàngalu bu nee suba la màggal bëggoon ku ma ko jàngal te seetaan naa na nga jànge bëgg naa nga jàngal ma man ko incha allah man fi ngay màggale man ko waaw mu daal di dindi téeméeri junni jox ma ne ma jënd ci sa màggal soble ak pomme te suba nag dama laa bëgg invité ca kër ga ndax nga xam kër ga ngir booy ñëw doo réer jus di tax jus di tax mi keroog laa jëkk xam ne dañ koy def si Nak bawa ali ali ali jang mi jang na japp na ba jàppoon na ni ndox sax bokoy e nan dang ci wara def dom <laughs> ngir hal joju ñuma solon rek nan nit day dëddu aduna day gem yalla day gaday wuti suñu borom xamante nit demon na ba nopi rek <laughs> ma ñew mu xel ci di tax jox ma ma naan ma daal di waaye lii lu mu mun ma li ci di tax la def ma cinéma nag وقتنا من وقتنا وريت يا عبد بركس يا الخادم بين وقت لما جاك وقت خراب لين جاك وقتنا من ما تشندي فور تشند بدل فور الدنيا رالدارا بركة الخرا من ما تشندي فور تشند بدل فور الدنيا رالدارا بركة الخرا def ma ci jëmmam boole ma ci jëmmam considération boobu ak respect boobu ak warma boobu la musul gis ci doomu adama ak xasaay yi seigne touba yi ni ko bëgg ak ni ko koy yëgee yëg goo ni daf ma daf sax euh, dépassé kenen kenn rek la gis ku melni mom ci man muy seigne Basiru Lo ali aram yalla nako ko yàlla xare aljana su may day tok ni buma damé aw bëy sax mu ma foofu de da nga lañ koy waxé <laughs> diko ko dima déglu bu julli joté mu dugg japp julli di ko fekkaat ma fi ma toog fekk si waat barka alquran motax nak bis bi dafa for ci nun lol for ci manit sori ci manit lol kon soone disun ak man di sunu kilifa jurnu di sunu serign di sunu yakar te ëlëk ni ak man sunu xel dal na bu baax baax sunu xel gël na dal bu baax baax baax bu baax no ngi ñaan sunu borom guddal sa fan te wëral sa ciir ngiram barke borom tuba ñu bari jariñu nañ ci sëñ Touba ci ak dëgg sëñ maam Thierno Dieng nii rek bi mu waxee ku la xam <laughs> xolam fees na.